Mbacké moom ko commune bu Touba moo ko moom commune bu Touba nag ci njiit la Abdou Lahad kon mooy superviseur bureau bi sous préfet mi am na ci supervision ñoom it ñoo ko bokk yilif ñoom ñaar bayaal bii ñu def bureau bi ab réserve la woon poste santé bi ñu fi def poste de santé bi bayal bi yëkkati yëkkatiwu ko woon taxul woon mu jóg am na beneen bayal boo xam ne boo xoolee plan yi poste de santé lañ fa def fa la poste de santé ba war fii moo ëpp ouverture moo gën a am accessibilité ndax fa prévoir woon poste jege na marché bi jege koo xam ne si nii xëy na ko ko fa defoon na médecin ba di bëgg a liggéeye mën na am du ko mën a noonu ndax ab dispensaire ko marché sësaloo gënu jëm bi ñu ñëwee Saliou Dieng tàllal ay plan proposé leen ko ñu ni ko fi gën ñu def fi poste de santé bi presque demoon na ci deux hectares et soo demee Dakar principal ci biir hôpital ba am na benn centre d'état civil bu fa nekk soo demee hôpital Abbas Ndao te biir hôpital ba am na benn centre d'état civil bu fa nekk kon dañuy ñaan suñu hôpital bii nga xam ni ni ko tonton Mbaye Sall waxee lépp léppay ñëw dina doon balaa moo yàgg dana centre de santé ay médecins nekk fii fi faj bu ñu ñëwee ku fi amee gone da ngay dem ñu bind la sa kayit nga ñëw ci centre de nga ñëw ci état civil bi ñu transcrire la jox la sa kayitu juddu mu gën a noppale vision boobu la chef de village bi am moo tax mu jegale maanaam bureau bi ak poste de santé bi ndax centre de santé lay doon moom walla kulli xaal ca yàggatul loolu ñii nga xam ne si nii dañuy xëy na di wax te xamuñu li ñuy wax ñooy naan dañoo dagg bayal bi def lii wala def laa fii poste de santé lañ fi am ak lii ñuy ubbi tey muy bureau bureau bii avant que Serigne Saliou Dieng di defar dem na ba ci Serigne Mountakha xalif général de Mourides mu tallal ko plan bi leeral ko ni nga xam ni si noonu la ci bëgg a doxee bayal bi def nañ fa poste de santé génnewaat naa ci 40 mètres ak benn mbedd 20 mètres muy 60 mètres 40 mètres yi damay génne deux parcelles yi def ko bureau lenn li gës su ma ko jaayee moom laa defar bureau bi sëñ bi ni ko loolu de am nga ci ndigal ndax barabu liggéeyukaay mën ta ñàkk ci ab village te village yi ko am bariwul mu jóge ci dem commune bi leeral loolu waa commune yóbbaale plan bi wan leen xalif général du joxe ndigal commune di ca dellu ginnaaw kon lii ñuy def fu wér lañ ko teg moo tax ñu mën a taxaw ci rajo di ko wax ñëpp di dégg nii la cosaanul bureau bi demee. maanaam gërëm nga liggéey bi sëñ Saliou moo na ko def loo mu xam ci lu baree baree bari loo xëy du ko wax ndax keroog ba ñuy dagg quartier yi ñu ne ah Saam jaanatu yooyu mu ne déedéet bu kenn Saam jaanatu ni tubaab bu ni tubaab ni tubaab muski xamee ni la tubaab bu xaatu mubaaraka war a xamee ñu dem ba tubaab muski doon commune gin naa jëm ci xab jëm bu xaatu mubaaraka dana dooni te ne teg naa ji bët kon su préfet danañ sant waa mairie ab laarka mënuñu koo ñàkk sant ndax bi ñuy tàmbali fii am na ñu fi jógee dem di ma kalaame waaye dañoo xamul taal taal du fétal waaw sëñ taal moom ma liggéey loo te moom ma sant ma def lii naka ñëpp xam man làqatuma man fang-fangal sëñ Tuubaa moo ñor sëñ tubaa la liggéey te bu ma fenn may nekk def pour bëgg sëriñ Tuubaa yar naa fi jóg